sëriñ Bassirou saar wax na ma kóllëre gu mu am ak Alaaji Aliyu Lo gu yàgg ni mësta dugg Tuuba te ñëwul ci moom kon ci turu njabootu soxna May te sunu kilifa jiite njaboot gi yàlla na ko yàgg jiite sëriñ max foos nekk ci biir daara ji di ci liggéey liggéey bu rafet sëriñ Abdou Bali nekk jëwriñu organisation bi maa ngi yëkkati suma kàddu di dalal njabootu sëriñ Touba gépp tàmbali ci Cheikh Moustapha ba ci soxna May bintu Xaadimu rasuul ci taxawaay bi ñuy taxaw bés bi waaye dugal ci képp ku sëriñ Touba seexal sëriñ xabaan mee ñoo bokk way jur muy Cheikh Mamadou Fadal sama bàyyi Aliou da daan wax yàllaa ko bind sëñ Fallou moo ko maas soxna may bi mu nekkee fii sama bàyyi bu tegee saag bi ci kër Rama Fall soxnaan si nga xam ne daf ko ko sédde woon fii lay jëkk a dugg ci Touba mu nekkoonub xaritam doonub sëriñam doon wëllëreem wu wér quinze ak léegi nag maa ngi fekk bis bi maa ngi doon teew fii sëñ Bassar di yónnee at mu ne junni ganaar loolu la tàmbalee woon junni kon mel na ne ganaar ya nga xam ne soxna May toggoon na ko andil ko Cheikh Mamadou Fadal ah liggéey la boo xam ne bii de dañ koo jiwoon ci bàq bu tooy xib at mi nga xam ne indi nañ fi gileem dama ñëw mu ne soxna May Modou Fati xar yi yóbbul Moustapha Cissé mu gis gileem ga ganaar ya de ay giléem la léegi at mi ñu sañcee kër gële ci HLM ci laa jëkk a ñëw ci moom ni ko dama bëgg di barkeelu di indi ñaari dab waaye dama ko bëgg a def loo xam ni dafi dul bari ceebi jën mu ni ma ah sàllaaw lool de bu ñëwee rek lépp mat ma dem wut jën yu mag di togg di ko indi at ma ma ko indi ñuy sañ ci kër ga dañu gouverneur lii moo laa bëgg ku ci dogu say ajo faju nun ni ko defoon ñun sunu ajo faju na sëñ Bassar ak waa këram nee leen sëñ sang seen liggéey ci sëriñ Touba sëriñ Touba nangu na ko lu wér la ndax jëf ju sel la jëf ju yàll yàgg la jëf ju ànd ak Pastef la ndax ñoom ñu ngi koy def te boolewuñ ci lenn ci wax jëf ju mat ju yokk at mu ne bàjjen yàlla na la yàlla sàmm yàlla na nga fi yàgg nun ñi yaakaar bàjjen rusuñu ndax yow day bi mu la bàyyee yan bii ñun ñëpp jàqoon nañu soxna may ca reeja soxna may ca yërmaande ja soxna may ca tabe ga ca bëgg ga doomu aadama neexu tawat wóotu waaye mat nga place bi toog nga toogaay wi nga xam ne moom lan doon séenu ci yow jooyuñu wax naa sëñ Moussa ni ko soxna may li mu euh, soxna Bali li mu kiimaane ci man daf may woo di ma ñaanul bëriwul tëj ma ci néeg billaahi wallaahi taala daf may woo di ma digal bu déggee ci man dara xolam du neex lu dul lu rafet nee na bëgg koo dégg ci man bàjjan yàlla na la yàlla sàmm lii nga xam ne yaa ngi koy def yàlla na nga ko def téeméeri at yaa ngi njabootu soxna may nun suñu xol sedd na sunu xel dal na sunu yaakaar tolliku na kilifa de lii rek lañ ci bëgg kilifa guy muñ du ni on kilifa gu tabe kilifa goo xam ne foo ko gis bëñam génn moo tax njaboot gi nañu roy ci loolu may Maymuna bu sox sëñ Modou Faty Khary am ngeen sas ndax bàjj na leen yar te nit ku mu yar jukkoom nga war a jël soxna may day royukaay la li tax sëñ Touba séddee ko bis bii duy caaxaan de bés bii wér na ma ne ku ci def bu déwanee da nga def mën a def lu ëpp la nga defoon man de engagé wu naa bés bi ba ba may jóge fii bu ñëwee moom laay def suma bis duma ko def beneen bis danaa ci ànd ak yow mooy suma laylatul xadar kon sëñ xabaan nee na sëñ xabaan nee na engagé wu yàlle naa ko cheikh abdul fatah bu cheikh mamadou fadal yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla fay jëf ji mu jëf moom rek la war a jëf dem naa seeti ko bàjjen bi ma ñëwee rendre naa la compte nga bég ca lool ànd ak jiili fata nu waxtaan ci sunu mbokk defaraat sunu mbokk ndax mu wax ma ni diggante kër Alilo ak sëñ Fallou dara waru cee dox lu ci dox seytaane la seytaane soosu nee naa nañ ko rey nekkaat benn ndax àddina day jeex juróom benn fukki at ak ku ko am boo waajalul te yor tóor tóorul ndee ci sa bopp yàlla dimbaliwu la te sëriñ Touba sëriñ Touba li mu jëf njabootam tàqali koo wër ta am sëñ xabaam loolu yóbbante naa la ko sama xarit sama mag sama sëriñ sëñ aboo ni ko Moustapha nee na boo génnee wax ko soxna may moomu toog jaamu kër sëñ fàllu la moom man sama baay defal na sëñ fàllu lu ko kenn defalul ñaari yoon la ko yóbbu màkka 61 63 booba ku dem màkk ba ñëw dañ naan yàlla la seeti woon dañ lay ganale weer di rey gàtt nit ñi jóge fu ne Alaaji Baara nee na ñaari yoon yëpp ñoo ko ànd def international mu jox ko ñaari oto ba oto jafe oto ba ba mu yàqoo mu jox ko traction avant booba oto ku ko amit fa nga dëkk yaa fa ëpp teraanga ndax fas sax daa jafe woon sëñ Fallou moonu ngénte sama baay nee na doom ju mu am xar ma ñu ko tuddee sëñ Fallou ko joxe ma bokk ci ñi gën a neex na ngénte ci senegal rey ay xar yu bari rey ay nag di maye ay ñaar fukki dërëm booba moo xew moo gën a rëy ci lu ñuy maye ba tisbaar ji Mbaay moo ma ko wax kon man war na ma delloo sëñ Tuubaa cëram amuñu lu dul sëñ Touba yaay sunu kilifa wax naa ko sëñ Moussa fa laa jógee fa laay dellu yaatit sëñ Cheikh Awa Balla fa la ma fekk ni ci yow la jóge kon wax ji duma ko guddal nee leen sëñ sang ñun ñiy soñ ñun ñëpp te moom ci la bokk ci kër gi yàlla defal nañu ay maqaama ak i martaba ndax soxna May dafa liggéeyal yàlla liggéey boo xam ne nangu na ko nu nangu nag nun liggéey boobu dugg ci biir liggéey boobu kon yàlla nañ fi yàgg yàlla nañ fi tase déwén liggéey bi buñ fi jógee nañ ko commencé la parce que bis bii kat lu ci waay ji bàq bu tooy la dana ñor dana nekk njariñ bàjjen yàlla na nga fi yàgg a yàgg njaboot gi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa